yóbbu mooy lu jëm ci wàllum déguerpissement bi jamono ji nga xam ni lëmbee na réew mi ci la nekk ginnaaw Colobane ginnaaw fu mel ni Kër Massar foofu la ca Sandaga itam demoon nañ fa ñi nga xam ne moo di waa mairie ba ngir jëlee ndaw ñi nga xam ne ñooy jaay ci territoire yi maanaam ci peggu tali bi euh, lu jëm ci loolee nag dafa mel ni jàppante am na fa ndaw ña mer nañ ba àgg ci loolu foofu ca Sandaga ba am na image yoo xam ni jot naa yaatu ba ñu di ko seetaan nga xam ne ñu ngi taxaw jaa maarloog ñoom ci wàllum déguerpissement ndax itam mënuñoo jàpp ni euh, maire yi ci seen wàll lañ nekk maanaam def li ñuy def nii wala dafa waroon lu jiitu laataa ñuy def ci waaw effectivement bon xam nga nguur gi ñu fal nguur bu bees la mm-hmm. je crois que nguur bu mun di doon si àdduna benn njëriñ rek lañ koy xaaree mooy mu procure bonheur ñu ay mandam mooy nga mm-hmm. xam ne moom lay administrer mm-hmm. euh, tey ñooñu ngay wax ñooñu ñun ndaw ñi bonheur boobu lañ yaakaaroon ba tey ñu fal nguur gi parce que yaakaar naa ñëpp a xam ne ce gouvernement a été c'est la jeunesse sénégalaise ki a élu ce gouvernement. Mhm. donc tey jeunesse Sénégal boobu nag yow avant ngay ñëw yow yaa leen doon wax déjà yow xam da nga xam seen problème. Mhm. xam nga ne amuñu emploi. am nañ problème mu xëy. Mhm. jàng. ñoo ngi dee si géej gi. par des centaines. te réew bu waree dox. ndaw moo koy doxal. parce que vous avez besoin de votre jeunesse pour bâtir votre pays. tey ndaw ñooñu nag ñu si ëpp bu ñu demee ba amuñu lu ñuy def. Mhm. ils sont obligés d'aller chercher des moyens des voies et moyens pour s'en sortir. tey li tane Sénégal. Mhm. mooy jaay ñiy jaayuñu dañuy jaayantu. Mhm. parce que un marchand ambulant la plupart d'entre eux. amul ñu si bari ñoo xam ne li ñuy yor day day day mot dix mille. man de j'en des amis. da ngay gis koo xam ne day xaar man ma dajji sama bal. balu yéwee mu ñëw euh, rangu sept wala huit. 7 8 yooyu lay jéem a jaay si marché bi taw taw du 1000 euh, francs 1500 mm. après ñoo delloo la jël si li wàllam mm. donc loolu wane lan que ñooñu dañu leen waroon jël en considération avant ça mm. et que la a horreur du vide mënoo ñëw nit ki déguerpi ko nii rek mm-hmm. mu war a xëy yaakaarul daal parce que ñooñu da say am ñoo xam ne ñoo yow seen papa ak seen yaay mm-hmm. am si ñoo xam ne dañoo am ay soxna mm-hmm. am si ñoo xam ne dañoo yow njaboot. ñooñu dañuy xëy marché pour mun a joxe lu seen njaboot bi euh, lekk journée bi. Mhm. nga xëy déguerpi ko donc cela veut dire que moom waxuma a tey de waxuma a euh, suba. Mhm. mais tey sax. il est euh, déjà il est dans une situation de pauvreté extrême mhm. parce que yaakaar ko fenn mhm. extrémité boobu nag mooy waral tey mu dem bay jaral leen mu jàmmaarloo ak ñooñu mhm. donc man lu ma bëgg encore une fois que l'État il devrait prendre les dispositions qu'il faut mooy il fallait d'abord des sites de recasement pour ces marchands ambulants ñu recaser leen d'abord waxtaan ak ñoom xool lu ñu leen di accompagner doo leen di déguerpir parce que nous sommes un pays pauvre endetté dañuy doxee comme su pays pauvre endetté ni muy doxee di jéem a changé pour mën a dem côté émergence ba keroog ñuy jógee émergence mun a dem développement mm-hmm. loolu nag processus la dafa am yoon bu muy jaar mm-hmm. du caagee rek da ngay ñëw ne tey sama ville dama bëgg tey tey mu mel ni ville bële mënul mm-hmm. nekk parce que dëkk bu nekk dafa am des réalités économiques am les réalités sociologiques am des réalités envi euh, euh, psychologiques yoo xam ne population bi dañ koy dundee ñii nga xam ne ay ndaw lañ ñu leen di déguerpir nañ leen xoolaat encore xool nañ leen di encadrer. xool la leen ay sites de recasement. ñoom aussi ñu conformer wu aussi si lii état bi di bëgg. da mhm. la limite. Mhm. parce que aussi tali si diggu tali aussi c' est pas normal ñu fay jaayee. Mhm. mën nga jaay si rebord bi ak tois bi. mais fi oto yi mën a jaar au moins. ñu bàyyi ko. donc loolu yaakaar naa une day laajte des assises. très profondes. nga xam ne état yi. acteurs euh, ambulants yi. Mm-hmm. les mairies. Mm-hmm. qu'ils en qu'ils en discutent davantage. Mm-hmm. parce que tey bu déguerpissement amee. il faudrait qu'il au préalable qu'il y le ministre de l'intérieur. le ministre de l'intérieur moom moo chefé les mairies et le gouver le les le gouverneurs. les mairies et les les les le euh, et les préfets. ñoom ñoo chefé les mairies et les conseils départementaux. donc mënuñu def loo xam ne amul une coordination. Euh, hiérarchique donc am na yoo xam ne jaww ko nañu waxante ñu xool li nga xam ne moo nekk ñu def ko. donc ni ñu koy defee nii nag metti na lool parce que wax dëgg yàlla ci dëkk bi fi mu toll liggéey amul situation amul da leen di ñeengantal man sa sa donne juste un exemple vous savez dama si am benn xayit mm-hmm. ma ne ko dina am ku ma la boolee il va vous mu dem si waa ji euh, vingt cinq mille la fa jël après ma woo ko mu ne ma mais ton ami là pas ambitieux ma woo ko ne ko mais yow man maa ngi yaakaar maa ngi waxoon le gars au moins il faut lui donner deux cent après quand je l'ai appelé mu ne ma non Ibou man 25000 ça me suffit pour l'instant je veux partir de mes propres moyens bu ma jëlee 25000 suba ma dem jël ko ay sous tout lépp ak ay. jaay ko su euh, truc jaay ko. ainsi de suite. noonu la miin naa ko. 25000 mm. ma ko jëlee mën naa ko jaay dans la journée mun naa ko jaay. Mm. avant 4 jours 5 jours. Mm. ma mën ko delloo xaalisam mën a nekk. xam nga kooku tey boo ko déggee amatul fenn fu mu jëm. lan lay obligé mooy dem jëli la migration irrégulière. Hmm, parce que lan la day nekk un suicide collectif. mooy léegi nag am mbaa ñàkk comme ni ko booy souvent di waxee am mbaa ñàkk. maanaam amatul sëñ Ablaye c'est-à-dire mbir mi en réalité trahison d'une promesse électorale da cee nekk. parce que parce que Ousmane Sonko yàgg nay campagne presque euh, presque dix ans ngi nii xaw ma huit ans mu ngi wër di ja di dajeeg ñëpp gis na li xew ci réew mi yëpp. te mosul wax marchand ambulant yi ni leen su ma ñëwee dama leen di jëlee fii mosul leen wax loolu dala dafa waxoon ni su ma ñëwee dinaa changer dëkk bi yéen ñëpp di ngeen am liggéey réew dëkk bi dinañ ko defar ba mu nice loolu la waxoon mu ñëw même pas trois mois muy fitnaal ñii nii dafa ñaaw doomu aadama yi ni ñu leen di fitnaalee nii dafa ñaaw préféré Dakar bi ma ñoom ñu koy la fii lu fa xew rek ñun Sonko lañ koy teg parce que moom moo campagne moom moo non moo campagne moo moo joxe moo moo joxe candidat moo gagné mooy premier ministre léegi sal daang ci dëgër pisma non Sonko foofu dafa war ay kàddoom dafa war bi mu demee kenn ku nekk sa liggéey lii dogal la boo xam ni. mairie bi la ñoo ko jël. xanaa déggoo tey ñoom lu ñu wax am nga droit nag. am nga marché ambulant ci boppam tey leen dégg xam nga ñoom ñu wax. ñu ne dañoo defoon ne état bi la mais dañoo dem ba ci biir xam ne nii yëfu mairie hmm. bi la parce que circulaire ministre de l' intérieur bi gis nañ ko te liir nañ ko. ministère de l' intérieur ci état bi la bokk. mais c' est à dire c' est mooy man li ma ko jàppee mooy. Ah. li ma ko jàppee dëgg ah. mooy. Ah. comme euh, am na dogal yoo xam ne bala ñu ko jël dañ ciy tàggoo. ba am ci ndigal te itam ministère de l' intérieur wërte amul sañ-sañ bu tooy ni maanaam maire bi am dogal boo xam da ko war a jël ci ab goxam mu am liggéey bu moo def xam naa tàgg na ko mu jox ko ci diggante ko doxal waaye lépp loo xam ni maire yi jëluñu initiative bi initiative bi ministère de l' intérieur la jógee c'est-à-dire nag nañu xam benn affaire instant bi nii man ñii ni ñu leen di fitnalee may ma eggaleel ñii ni ñu leen di fitnalee man vraiment dafa maa métti non dafa maa léegi nag soit ñaara am hmm. soit ñoom dañuy tay taylu wala dañoo bëgg a li ñuy tuddee les dégâts collatéraux hmm. te dafa teel dafa teel ñu accepter les dégâts collatéraux parce que ñoom ñoo gën a xam ni booy yi suñu leen leen jóge leen fi tay tay tay suba amuñu fu ñu jëm hmm. est-ce que dinañ am lu ñu añee hmm. seen yaay yi xaar bi nekk Saalum wala Louga bi xaar nga xam ne chaque jour da ngay xëy soo liggéey avant midi nga wéef ko benn 3000 francs bàyyi ma eggale fii euh, wéef ko benn 3000 francs cest à man je vois un peu je vois un peu mm-hmm. la politique de Macky Sall nga xam ni mm-hmm. dara da doon xew coow am wala ay nit dee Macky Sall ni non c'est du vent qui parce que dafa dafa jàpp ni les réalités du pouvoir mm-hmm. mooy accepter soo jëlee ay décision dina am ay impacté mais garaawul loolu réalité du pouvoir la léegi dañuy laaj Sonko est-ce que moom dafa dafa bëgg a accepter nii marchand ambulant yi nii. ah nañu nañu nekk ay non mais c' Sonko ñun Sonko fii Sénégal Sonko la ñu fal. bi def ci ndànk. non lii xam nga man lii dafa metti ñëw tuuti rek xam nga man lii rafetlu ko ndax man dama jàpp ne nit ki boo koy jëlee fenn da mm. nga mm. naa ñoom ci seen wax ñu ne seen am na benn centre commercial bu fa nekk. nañ leen ko jox mais ñoom war na leen mën a sax tabaxal fu ñu nekk ba pare magasin yi ñu wàññi ko def ci xéewal ndax am na ñoo xam ne ñëpp ñoo fay place mm. mais d'accord ma sax nga jékki-jékki jëlee fi ay nit nii comme ça te amoo fenn foo leen teg wala état def leen jël ay hectares jox ko jeunes yi jox leen ay matériel ñu bàyyi. parce que marchands mm. ambulants yi am na si ñoo xam ne ku parce que suufu Sénégal suuf si nangu na am na ndox am na fi. Mm. peut-être am na si ñoo xamante ne ñu xarañ lañ ci wàllu mbay. marchands ambulants yi baree bari kaw ga lañ jóge mm. mbay rek bay rek lañu xam gis nga tey ji bu état jëloon ay hectares jox leen ko jox leen matériel. diñ ci gis ñoo xam ne ñu jaay. parce ah, que mbay dafa barkeel. mbay mbay dafa barkeel.